violence verbale avant ñuy jall ci acte té fan yi avant ñuy tambali campagne bi ku nekk xam na ne la violence était dans, dans le verbe déjà est-ce que lolu aussi nekul euh suuxat tey li ñuy li ñuy gis ni motax motax euh, xam nga yàlla bi dafa am contraire motax bo boo bëggee jàmm da ngay jëkk d'abord diko wax jamm dañ koy wax après ñu jëfé ko. jamm dañ koy waxtané jëfé ko nekke ko ñu xam ne da ngay ut jàmm mais bu vous ne yow ci sa wax amo hmm. mais sa dox du am jàmm sa am et li avons les les importance hmm. parce que vous faites ñun depuis 2021, mille plusieurs fois. Hmm. dañ am plusieurs fois am ba am philosophie peut-être gatsa gatsa. malheureusement. dañ koy nangu mais après la am idées. mais nous am après après vous mu c'est ça la question. donc dafa mel favoriser les 2021 montre vous commencez ni demb, mais il ne faut pas être surpris que demain nous allions dans la même situation rien ne nous sort de la situation Vous mm-hmm. faites ne affaire bi que de wala bu nit ñi taxawé wala bu sa censuré nga wax lu la neex faire appel à machin. Hmm. mais di nga woté ñëpp wuy si la. ce sera la casse hein. bala ñuy génn chapitre violence bi wala premier jour de campagne bi euh, gis nga euh, ni ni ñu commencé déjà les discours noo jangaté par exemple quelqu'un comme Ousmane Sonko à Thiès on l'a entendu dire que euh, déjà ay révélation moom mooy rëbës bi mu wax né jaay nañ ko ba nopi ensuite Cap Manuel jaay nañ ko euh, last but not least mu wax ni également yokk ci ni am na kenn ku bokkoon ci nguur gële fekk nañ ci kontam plus de 1000 milliards. xam nga loolu yëpp xam nga loolu yëpp entre nous. entre nous entre nous man mënuma gëm ne fekk nañ ci compte nit benn nit personne physique 1000 milliards man du droit de mënuma ko gëm. Par exemple, moom mu 1000 milliards nga fa. 450 mhm. milliards en euros bon, yo fait 700 non mais est-ce que compte trésor 1000 milliards non attends attends mais mais ensuite. ensuite bu faites ne la te ko. Mhm. du dañu passé fi depuis le mois de juillet 2024. la déclaration de politique générale devant l'Assemblée démocratie loo ci tëb boobu sa kanam tuuti mu dab la te da nga am ay remords am ci ay difficultés wax bi du léegi wax bi dajale nit wax du dem Dakar Arena wax ak trois personnes mille milliards bu fekkee ne wax nañu ko ñun mu nekk ci compte kooku ñun sénégalais ñooy dem jëli ko mais comme moom li mu ñu waxoon yëpp. dara nekku ci tey dafay jafe pour ñu gëm ko. li mu ñu waxoon en tant que opposant wala en tant que. Ah, ah, nga bu ma indi débat boobu xam nga bàyyi leen débat boobu ngeen di daw. daf ko wax daf ko daw en tant que daf ko wax en hmm? tant que responsable. di raaj réew mi ne lii moo fi am. Mm-hmm. lu nekk bi si mujjee rek barki démb la ñu ma jël kenn ku ñëw na nga toog le 24 mars kañ la woon. ku nekk fi nga nekkoon le 24 avril. la nga ko toog waaw léegi gars yi ñëw nañu wala gaa ngi dem recevoir nañu. du dugg nañu ñu ngi leen di sedd ngoonte bon ana wax bi il ne faut pas aussi que les hommes politiques ñu ne kenn du changer sa wax ñu ne kenn du évoluer mm-hmm. d'ailleurs tubaab bi mooy wax naan c'est les imbéciles n'évoluent pas. ne change pas ne change pas donc loolu am na parce que nit dafay changer am lu xew am ay concordance yu am.

Ah mais léegi nag kan mooy comprendre ba may bind xam date bi ak lan ak lan moo c'est une question mais moom ci boppam moo ne ne man li ma doon def yëpp déedéet ba pare am ñu koy génn film ni joy, ni xam ni ñi daa toj montre joy def ni ñëpp ñëw taxaw ci télévision ku nekk jaar ci benn rajo joy. alors que c'était pas vrai il était dans la comédie mise en scène bi c'est digne de Jean-Pierre Lers

war nañ sax gëstu banque bay non mais moom xam na ko jarul sori moom li ñu ko war a def rek mooy jëli ko te man d'accord naa tey bul li assemblée amoon mhm. ma ne ko boo ko jëlee yow yaa moom 10 pour cent yi mhm. c'est aussi simple que ça d'accord waaw en tout cas euh, euh, en tout cas mi ngi noonu euh, par rapport à cette déclaration de Ousmane Sonko